dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy du ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall démb ma ngi woon ca Cambérène ca Laayeen ya ci ziar annuel bi nga xam ne at mu jot nañu koy amal tuddee ko appelé Seydina Limamou Laye Al Mahdi fa la Macky Sall demu niki démb waaye nag ba mu janoo ak xalif généralu Laayeen yi yëkkati na fa ay kàddu nee na xalif généraux yi nga xam ne nee na kilifa diina yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dañu leen war a wekk dañu leen a dañu leen a war a jox considération loolee kàddu yi Macky Sall la ma ngi bi di réew mi ko di jeex moom borom réew mi daat nay wax ne diine l'islam dafa nekk diine joo xam ne dañu ko war a wagara ndax am na ay kilifa diine yoo xam ne lenn lu nekk def nañ ko ci kon nag li nga xam ne moo ci am ba des la diine l'islam diine la joo xam ne maanaam diine jàmm la ndax maam Cheikh Ahmadou Bamba def na ci li mu ci war a maam Limaamu Laay def na ci li mu ci war a def El Hadji Malick Sy def na ci lim ci war a def El Hadji Omar Foutiyou def na ci lim ci war a def Baye def na ci lim ci war a def kon diine ko war a fonk bu baax a baax ndax diine jàmm la diine paix la diine la nag bu loolee weesoo état bu Sénégal lépp loo xam ne war na koo jël ci jàmm réew mi dina ko jël ba mu mët sëkk yéen kaay gi di libération ñu fekk ko fa moom ji turam di président Macky Sall nee na dañoo war a suñu sunu kilifa diine yi war leen a jox considération waaye nag laisser aller bi loole moom duñu ko seetaan tey du ko seetaan ëllëg te nag du ñu seetaan kenn di andi ak pëccëxoo ci réew mi yéen kaay gi di réew mi ko dëjee ci xëlim ak Assane Samb nee na Macky Sall démb ba mu demee ci laayeen yi toog ak xalif généralu laayeen yi waroon na faa wax lu jëm ci wàllum waaye nag Macky Sall bu ñu seetloo dafa mel ni jamono ji wàllum toog waxtaan Macky Sall bëggu ci dara dafa mel ni bëgg ma mooy jàmmarloo ak Ousmane Sonko manaam confrontation waaye nag li nga xam ne moo amba desal muy Ousmane Sonko di Macky Sall ñaar ñii dafa mel ni maanaam kenn bëggu si jàmm kenn bëggu ta wax ak sa morom kenn bëggut ta andi jàmm kenn bëggu a dialogue dafa mel ni jàmmarloo moo leen gënal kaa ñu aña Assane Samb nee na dialogue moom lu yàgg la ci Sénégal te nag ñi nga xam ne ñooy waa Touba di waa Tivaouane di waa Kaolack di waa Pire di waa Ndiassane di waa Yoff di église bi ñoom ñëpp jamono ji war na ñoo dugal seen loxo ci jàmmi réewum Sénégal ndax am na loo xam ne maanaam ma ngi yoot Sénégal bu yegsee baaxul yéen a kaay gi di l'Observateur ak Le Soleil ak L'As ak Sud Quotidien ak wal fajiri ak Le Quotidien xëy di ñu xibar naan ñu démb doon nañu amal conseil supérieur magistrature bi maanaam Macky Sall yëngal na magistrature bi ba xolam sedd ndax bëri na ay coppite yoo xam ne am na ci yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Abdou Karim Diop léegi mooy procureur de la République maanaam moo fa wutu Amadou Diouf mi xam ne moo ko nekkoon moom Amadou Diouf ginnaaw bi mu nekkatul procureur jël nañu ko mu nekk président cour d'appel bu Ndakaaru journal bi nee na Ali Siré Ba jamono ji moo nekk njiitul Cour suprême Ousmane Diagne mi nga xam ne moo nekkoon parquet général jamono ji jël nañu ko yóbbu nañu ko Cour suprême mu nekk fa avocat général Ousmane Diagne moomee nag jiite woon parquet général moo jëloon plainte bi Ousmane Sonko plainte maître Sow jébbal ko waa DIC plainte boobe ak dossier boobee Ousmane Diagne bàyyi na ko fa jamono ji nag kii jiite parquet général di Ibrahima Bakhoum moom la ñu bàyyee dossier ba journal bi de la témoin nee na Ibrahima Bakhoum moo nekk procureur général yéen a kaay gi nee na Moustapha Fall jamono ji moo nekk président tribunal grande instance hors classe de Dakar Ousmane Chimère Diouf bi jiite kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal moom la ñu tabb mu nekk président cour d'appel bu Saint-Louis yéen kaay gi de la tribune nee na en tout cas li am ba de sall Macky Sall lan lay waajal loolee war nañu koo laaj ndax gis nañ ne magistrature bi jamono ji bëri na ay coppite yoo xam ne am na ci li am ci yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy du ñu xibaar naan ñu dossier Fulbert Sambou ak Didier Badji dossier bi demul ci nga dikkul mbay laara maanaam point mort ci la nekk ndax Didier Badji ba léegi kenn gisu ko Fulbert Sambou moom ginnaaw bi ñu ko génnee ci ndox mi journal bi nee na mbir mi nag ñetti weer boobaak léegi amul kenn koo xam ne déglu nañu ko njabootu Fulbert Sambou ak Didier Badji ñoom porté nañu plainte Bah Diakhaté bokk ci APR ak Sousane Camara bokk ci APR ndax ñaar ñi dañoo wax ne xam nañu kan moo rey ñaari militaires yi waaye nag ba léegi kenn convoqué wu na maanaam seen ginnaaw bandanga yéen a kaay gi de Le Quotidien yor yora nee na militant la nguur gi teg bët ñoom la ñu ciblé nguur goo xam ne dafa tiit ba maara détaillé nguur gu ragal nguur goo xam ne ma ngi frappé nguur gu jeexa ñu bëgg a teg fin na militants yi nga xam ne ñoo nekk ci Pastef lu ëpp téeméeri otage politique yoo xam ne ñoo ngi ci kasu bi te nag Macky Sall bu jàppee ne Ousmane Sonko mooy Karim Wade wala Khalifa Sall ma ngi nax boppam te Macky nii nga xam ne moom lay doxalee bu ko Abdoulaye Wade doxalee woon ak moom maanaam du baax te Macky Sall nag leneen loo xam ne war na koo xama maanaam oto yi nga xam ne moom la indi ñu sëf ndox mu tàng mi ak char anti émeute yi ak grenade lacrymogène yi loole nag mënul lenn ci askan woo xam ne jóg nañu taxawal te Macky Sall war naa laaj Moubarak wala Ben Faye wala Yaya Jammeh yéenekaay gi di Rewmi ko xëy di ñu xibaar naan ñu Serigne Bara Niane niki démb doon nañu ko àttee ca tribunalum Dakar ci lu jëm ci wàllum escroquerie wàllum dëbbu li njaar ndax nee nañu dafa nax benn waay bu tudd Serigne Mbacké Dema ab muudu muudu la lu toll ci quatorze millions démb la ñu ko doon àttee dañu ko mandat woon dépôt fukki fan ak juróom benn ci weeru février waaye nag nee na dana remboursé jot nañoo joxe lu toll ci juróom-ñaar ci ay millions mu des juróom-ñaari millions ak njabootam nee nañu nag danañu ko fay ci diirub ñetti weer journal bi nee na ñaari ati la ko ko tëdd yéenekaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa rëg-rëg rëg nag nee na Sa Thiès maa ko man waaye nag waxuma la Sa Thiès sax waaye mboolem mbër yi nga xam ne ñooy yeewoo waaye man rëg-rëg maa leen man